Sénégal yàlla defal nañu jàmm am nañu pétrole ak gaz président Macky Sall bi muy ñëw di yor réew mi pétrole ak gaz amul woon yàlla defal nañu loolu loolu nag fu mu am ci àddina bi am na ñuy jóge bitim réew di ñëw pour yàq loolu jéem a déstabiliser suñu réew pour mën a aakimoo suñu alal boobu loolu nag duñ leen ko may liñ leen ko dul mayee mooy d'abord ñu defaroo bokk ndey bokk baay suudewu derrière le président Macky Sall fan yii nit ñaa ngi wax courant bi dañ koo yokk dañ koo nangam mais fàttaliku leen ndax fàttaliku baax na de 2011 2010 lan lañ doon dund xuyi kamaj délestage nous la wala du le ñun ñep nañ président Macky Sall 500 mégawatts de production d'électricité mo à fi amone doyul tay ji 1200 mégawatts moi. am di dox état bi daan jël lu bare di subventionné ñi ni ñi facture courant mu doon ñetti benn bi moo ñi néew doole te seen loxo jotul seen ginnaaw benn bi moo ñi digg doomu benn bi ñi nga xam ni yàlla defal na leen wërsëg ñi nga xam ni dañoo néew doole président ni déedéet loolu man duma ko def ñi néew doole duma leen yokkal dañuy continuer di conserver li ñu daan consommer ñi dëgg doomu tuuti 6 pour cent ñeneen ñi am doole nag

Lòl nèk, nye pò kò wara kham. Mè, bù dara amè, amnè njou kòy itulize. Amnè njò kham ni, bù njou sanyon te di, fè prezda makisa lò tok, dò fò tok. Lèp lù mou ligè, si sou wè bangon, rè njou fè kèl lùm kòy akhe. Njò njou nèk, rè njou bè njou yak se njou kèl njoun.